D'accord, j'arrête le live. Non, il faut garder le man Macky Sall ëpp na droit keroog bi muy doxantu ci VDN est-ce que vous l'avez arrêté arrêté on donne des ordres qui sont manifestement illégaux qui ne sont assis sur rien réew mi ñoo ko bokk mais rafetul man personne ne ko mel voulez vous m'arrêter, si vous voulez vous me taper, mais ce que je dois faire, mes droits, je les, je les exercerai. Personne fii ci àdduna mën na ko def. Nous sommes pas là pour ça. Mais vous êtes pour ça. Nous sommes pas là pour ça. Lan moo fi am ba ngeen di jox lacrymogène. Nous sommes pas là pour ça. Si vous évitez lacrymogène. Vous êtes en train de faire ma tournée. C'est que vous ne savez pas. D'accord, comme vous voulez. Vous êtes en train de faire ma tournée. Si vous m'avez laissé, comme vous voulez, il n'y aurait aucun problème. Tous ceux qui sortent là, mais moi je ne les ai pas appelés. Dieu m'est témoin. Hier j'ai fait un live, j'ai dit je ne vais pas en meeting, je ne vais pas en campagne. Je vais en forêt, je vais trouver les gens. je les salue. les gens ci dara. et vous allez entrer dans le quartier pour faire des lacrymogènes. man dëj sax su ma fa demee jaale nit ñi génn. je vais le khalife général des Mourides quand je sors les gens de circuler. nous vous prions tout simplement. regardez où je suis entré. Mhm. depuis que je suis à Joal. je suis allé je suis allé chez mhm. je suis allé ici chez les tout à fait. je suis allé chez ma belle nga. on vous a pas suivi à l'intérieur parce que ça c'est privé. c'est privé mais vous la voie publique. est-ce que vous m'avez vu appeler quelqu'un pour la voie publique. c'est l'attroupement politique monsieur Sonko. j'ai dit est-ce que vous m'avez vous savez. Mm-hmm. moi je suis juriste. Mm-hmm. et vous l'êtes certainement. Mm-hmm. c'est que j'ai une formation. en tant que pour a un, un délit soit constitué, il faut un certain nombre d'éléments. Est-ce qu'on m'a appelé les gens à un attroupement Moi, même si je vais en décès, les gens, les gens sortent. Laissez mon convoi tranquille. On n'a rien à faire avec votre convoi. Non, il y avait la C'est des cortèges qui sont interdits. C'est des cortèges sur la voie publique qui sont interdits. Interdisez les cortèges. D'accord, d'accord. S'il vous plaît. S'il vous plaît, allez-y. Allez-y. Allez-y. Sénégal la le président qui a fini de parler je bien au commandant pour lui dire que wootewul attroupement te dëgg la wax ndax démb dafa ne bi ñuy live Facebook dafa wax ne wootewul attroupement wootewul meeting wootewul cortège yàlla nag moo dogal oto yu bëri loolu kenn mënu ci dara voilà et ces droits seront respectés il a dit personne ne peut l'intimider et personne ne l'intimidera inchallah son programme amul kenn ku ñu mën a xokkatal ci réew mi ba suñu activité politique duñ ko déroulé loolu dafa war a leer ci boppu Macky Sall ak waa këram ñun duñu ay ragal te kii kuy ragal du ànd ak moom lu ñu pare pare nañ ko li yàlla li yàlla dogal nag kenn ci dara nit ku nit ku dugg ci otoom di ñibbi nga naan ko da nga créé attroupement fii ban attroupement moo fi am man sama jox naa fu li mu ko wax leer na personne ne peut m'intimider man damay dem wax ak sénégalais yi fekk leen ñoom loolu la ñu woote. lool lañu ñu woote jàmm la ñu woote waaye nag nit ñi le président Ousmane Sonko li mu ko wax dafa leer nee na ko nit ñi man moomu ma leen su ma duggee ci koñ bi nit ñi di génn mënu ma ci dara te loolooy dëgg ndax loolu la yàlla dogal ku muy xasal sa nag bu la yaboo nga naan saabu ta dem noppalu ji lii lay demee ba 2024 incha allah fii ragal nekku fi ba keroog ñuy gagné incha allah. boobu ba léegi gis nañ fi ay cortège ay nitu république waa APR kenn terewu ko lii nag la yàlla dogal kenn mënu ci dara sénégalais yi ñooy génn di ñëw saafonte ak moom kenn mënu ci dara te woowul kenn. ko dafa leer nee na ko dama jàng droit xam samay droit fii amul benn délit boo fi mën a constituer ci attroupement wootewul invité wul kenn pour mu génn sénégalais yi lay dem nemmeeku seen i kër ak seen i bërëbu liggéey sénégalais yi génn lu ci nit mën dara kenn mënuñu intimider et il a répété clairement devant le commandant nee na ko personne ne peut m'intimider et personne ne l'intimidera